seetlu jërëjëf balaa may wëy ma ñaanal Baye Doudou Laye gannaaw ba ma ñaanalee Imam Bachir yal na yàlla yeesal yërmande ak njéggal ci moom te fay ko taxawaayam ci diine ji mu ngi ñaan Baye Doudou Laye yal na fi yàgg lool te ànd ak wér yàlla kattanal ko sàmm ko bàyyi ko fi at yu bëree bëree bëri ba mbébét yi mu am ci diine ji yàlla dimbali ko mu si taxawaayu si si taxawaayu ay rakkam mu mën ko mottali incha allah. di wax ne assemblée générale groupement central ñuy def chaque deux mois bàyyi ngeen Thiaw joxoon ndigal rakkam Idda pour mu ñëw présider ko euh, ñu wax ne euh, dañuy chaque deux mois groupement central dinay faral di waxtaan ak représentant xalif yi nekk ci localité laayenu euh, Sénégal yëpp gis ngeen ba fii ba Fatick fii ba Gossas fii ba Ndar am na ay ndaw yoo xam ne ñu ñoo fa bàyyi ko ngir ñëw teewal gox-goxaat yooyu si njiital représentant xalifa yi

kon mu melni tay amna ay point yu am solo bi si jiitu mooy euh, wax nañu représentant khalifa yi ñu bayyi xel ndigal li khalifa bi joxe ci walu communication surtout par rapport ak date datu ñaan yi datu ñaan yi léeg-léeg xalifa bi laata muy génne sax ndigalam manam jaarale ko ci groupement central muy communiqué officiel boobu ngeen di gis dinañ gis ay initiative lepp nak bi ak xër ak bëgg a waajal mbir yi wayé attiré ñu attention représentant khalifa yi ci importance su déglu ndigalu khalifa bi mom dafa organiser diine ji jël mbirum date yi ko Mamadou Makhtar lay kon lepp la nga xamantene ci walu organisation la ci nañu xaar ba imam jox khalifa bi khalifa bi joxe ndigal groupement central mu officiel bi attention représentant khalifa yi ngir ñu waxtaan ak yi bu baax dal gi ñu dal par rapport ak date yi ak par rapport ak xalifa bi ci ay bëgg-bëggam ñu jëfé ko non ñu xamné mom mom lañ ko soxla deuxième point de discussion bi moy li jëm ci walu waccayu appel bi ñu mu ngi bëgg ñëw mu am nak ben événement bu am solo wala ben réunion bu am solo bu ñu tuddee réunion annuelle lu gamu bi nga xamné moy mooy lancement préparatif à appel bi ñu daan ko def chaque année fele ci yof kër khalifa bi dajale représentant xalifa yi yëpp ak imam yi ak représentant association yi ngir mëna waxtaan ak ñoom si mbiru waccayu appel bi surtout li jiitu si wàllu euh, waajtaayu sasi muy manam dëkk bu nekk lañ la sas pour nga andil ko xalifa pour pour ñu mën préparer appel bi ci loolu fàttali nañu leen rôle bu am solo bi xam ne moom la représentant xalifa yi di jouer au niveau de chaque localité di rôle relais entre li xalifa bi bëgg ak li nga xamante ne ñoom buñ ko jotee moom la ñuy transmettre au niveau des des localités ñu ñu mën ko jëfee ñuy ñaan xali représentant xalifa bu nekk boo demee nga waxtaan ak sa dëkk.

Euh, euh, gros travaux yi mënuñu fi mënu fi sotte ci diggante 1 mois ñu ne kon ren dañuy teel tàmbali réunion yi jëm ci walu gros travaux assainissement ak gros travaux yi jëm ci walu route ak infrastructure ngir mën ko teel a état bi inshallah lolu loolu tam waxtaan nañ ñu défar nañ document comité de suivi bi dañu informer xaalifa bi ngir mëna tambali ak gouverneur réunion yoyu benen bi bi ci dess moy lu jëm ci walu ci walu Radio Jamala FM di instrument communicationnel bu am solo laayeen ñëpp xam nañu njëriñal la bi muy nag dox tant bien que mal ak ay difficulté ñu ne kon jot na ñu yeesalaat tey de radio, bi di comité de gestion bi bu baax ndax depuis un certain temps dañu seetlu ne financement bi jëm ci radio bi groupement central la koy support muy ay charge yu xawa 10 waye waaye ko ak ay bonne volonté yoo xam ne participer te di ko li ci ëpp ci Seyna Diop ñu sant bu baax. mais dañ il est temps que rajo bi ñu réactiver waat comité de de gestion bi ngir mëna am ay xalaat amna xalaat yu baax yu xamné mom mo fi jóge am na sax ñuy proposer lu jëm ci changement de nature juridique bi lu ci mënti doon dañ ci waxtaan xol implication wu forme juridique bu né ak ay parce que forme juridique bu né amna ay euh, conséquences yo xamantene ne dala koy may ci walu euh, jëflante dañ ko waxtané waaye li am solo moy taxawul comité bobu jébbal ko mbir yépp mu ne comité nak bu yaatu surtout intégrer ci personnel yi xamantene mom la diiné ji am ci walu communication toutes les ressources humaines yi xamantene ne wax seen xel match na ci communication ñu intégrer leen ci biir communication bi ak ñi xamantene dañ seen xel dafa match ci walu xam-xam muy euh ni euh, yalla may ci walu xam-xam ak ak diine ndax radio bi nak ab radio communautaire la mais d'obédience religieuse kon dina am solo grille de programme yi ñu calé ko ci diggante pertinence communication yi ak également pertinence su thème ya nga xamné mo lañ fay traité waye au passage di gërëm nga xamné ñom ñofa nek muy ustaas ñofa nek di di communiquer itam di def émission waye personnel technique bi également jotna wala boo jar na ñu ñu njukkal leen bu baax a baax a baax euh, c'est lu si tënk bëri woon na ay question lu ñu demee daañu ko synthétiser lañ ci war a valider daañ ko jébbal xalifa bi ak euh, ak i rakam euh, ku si nekk si si pàcc bi xam ne moom la xalifa bi dénk ñu ñu ñuy gërëm bu baax nag ñi ñu fi teew waaye di gërëm bu baax waa Caaroy Gaar ñi xam ni fan lañ ko defee tey ñu ngi nii si jàkkoy jàkkoy Caaroy Gaar léegi doon jumaa léegi ah di dëkk bu am solo di am initiative ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen euh, wax ne ñu gën a taxaw ngir mën a relever def yi waaye ni ñu ko waxee Thiaroye Gare noonu la ñu waxee si goxaate localité Layène yëpp ndax Layène yëpp gox goxaat yëpp bu ñu taxawee yaakaar naa diine ji day gën a jëm kaw te loolu mooy vision wu xalifa bi mooy vision wu Sénégal mi xam ne moom la dénk li jëm si wàllu wàllu wàllu organisation mooy vision wu Baye Ndiagne Thiaw mi mi nga xam ne tey mooy responsable moom moralu groupement central nga di gërëm ñëpp di sant ñëpp salaatan wa tasliman ala seydil wara maam li maamullaahi leeram ya ñoo raw yu jant bi